bis le 24 juillet kan lañ ci àndal Fallou Ndiaye le promoteur numéro un Fallou Ndiaye nee naa leen c'est pas pour rien ñu tuddee ko le promoteur numéro un tey nag bu leen fàtte ni quinze ans de Fallou Ndiaye la ñu génne tey Fallou Ndiaye ci teewaayu kan ñu ne boucher programme boucher kan jaw ci teewaayu kan Papa Guèye Otaï Koor ci kan Alaaji Yande Diop mi ñu duppee alaaji yambe mu sëriñ mu talaa ci teewaay kat nit ñu baax ñu ci stade bi yëpp de grands monsieur dans ce ndax tey li nga def xam nga ko tey indil nga maa ngi jëm ci le vingt-quatre juillet ci gala benn bu mag laa jëm ñu ne Fallou kan la boole ñu ne ay espoir ay ndaanaan ay xale yu mën a bëri ay xale yu am ginnaaw Fallou Ndiaye moo xam ne Nubia lu fi yàgg noonu taxaw waaye béykat ñoom ñaar bu leen fàtte ne dañuy bëri ci bis boobu waaye dam seet dama ko ne ndax di nga daaji waat beneen fetet maa ko ne woon gars yi ñoo ne la daajil beneen fetet bi nga daaji woon war naa ne ma bàyyi bàlla bu ma ne ko ndax xam nga ki ngay dajeel ndax ne ma bàyyi bàlla bu bu bis boobaa ma woon leen kat mooy daaji séeréer Fallou Ndiaye bis boobu lu mu indi muy bis le 24 juillet mbokk yi bés boobu bu leen ko fàtte de waaye ñu ngi jëm ci bisu le 6 ànd ak moomu production bés boobu tamit ci bàyyi xel waaye mbokk yi tey dañ ne 15 ans de Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye nit ku baax Fallou Ndiaye nit ku gore bés boobu alaaji na dañuy def soirée wala sec avant combat waaye mbokk yi Fallou Ndiaye wax naa leen ko léegi c'est pas pour rien tey ñu tuddee ko le promoteur numéro un ndax nit ku baax la nit ku gore la nit ku ñàkk ki ñaan la nit ku gëm li muy def la lamb c'est vrai que nit bëgg na gëm bëri na ay paq-paq waaye boo gëmee li nga doon gëm ki nga doon suñu borom mën na laa dimbali nga yegg Fallou Ndiaye ñu ngi lay félicité bu baax a baax a baax Fallou Ndiaye nit ku baax la nit ku gore la tey moo tax tey bésëb bii nii rek la mën a mel xoolal stade bi tey ni mu mel fees del Balla Diop tey ni stade bi mel wax dëgg yàlla du ñu def lu ñu félicité Fallou Ndiaye waaye mbokk ñaari champion bi taxaw Bécaye ndax xam nga xale bi ngay dajeel yaa ngi dajeeg ndax xam nga ki ngay dajeel ma bàyyi la nga nuyu ak ñi lay seetaan bàyyi la nga suñu mbokk di turnut maa waaw onze bi laa bisimilah inna wali yàlla jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jaaraama borom di nuyu waa Parcelles yëpp ama ëpp nga gis ama seen ama den seen baax baax baax baax waa Casamance sama waa dëkk dërëm mbaadi mbandu koolu mbaate dërëm mbaadi jeyla aldi maa ko mbaa soto bega ani nok yaaram insha allah le 24 juillet al am asaba bi doaro insha allah kii lu ma koy wax bëriwul buy bëre man bëriwuma buy bëre grand ay grand combat la man bëreeguma kii mën na maa jur papa nok yaa laa koy wax ma ko ne ay grand nokku yàlla papa nokku yàlla laa koy wax su dëggalee boppam dinaa ko neexalal gem neexal ko sut teg bësal bësal lu leer laa lay wax nag. mais mais mais da nga duggoon parcelle. da nga duggoon parcelle. moom dafa duggoon tey mu ñëwaat dugg biir parcelle. defet avance lay bëri. defet dugga yaa eh, lu dugg nii parcelle buy génnaat ay dàllam la fay bàyyi di daw dootul dugg nii parcelle. di ñaanal Guiro Seras Guiro Seras maa ngay ñaanal ndam seetu guy. si kaw Balla 2 waaw bonjour ginnaaw ma sant yàlla ji luñ jëloon di maa ngi sant sama ñaari waajur di ñaanal sama yaay mu fekke sama njëriñ di nuyu bool bool yi nekk ci stade bi yëpp maa leen di sawda bu baax waaw instant yi combat bi man wax waru ma war a jëf gars yi gis il est temps mais nice maa ngi sant waa Kër Ndiaye Lo fi ma nekk di sant gaay ma nekkal ku si mel ni mbay aw ma fayam chaque jour otoom la may jox ma instant yi kii yàlla xam na ne du ma moom. wóyul Ousseyn nee na am na bor boo amal bawol bawol man maa fi teg jeexal xam nga gaay naa bi teg jeexal man danu maa yóbbaale géew di sant waa Koulun ñëpp di sant sama gaay booy reefani ma fi yaa coom bi waa coom ñëpp maa leen di bëggee jërëjëf di leen wax waa boo ñu jàpp ci combat bi quoi. parce que il est temps. mais ak kuréel ak kuréel la ñu wàcc ana Dame Sène Dame Sène kuréel la ñu wàcc